tay la lancer lancé formation 200 talibé 20 ñoy commencé inshallah rabbi rabi bëgg nañ dem ak ñom lu sori. suñu objectif au niveau national <laughs> suñu yalla jappalé bëgg nañ former 2000 talibé inshallah rabbi fi ak ay at yi di ñëw incha allah ci ak partenaires yi yépp et commencé nañ ko à Louga jot nañ fa former des talibé tay ñu ngi and ak wa 3FPT inshallah rabbi day continuer ñun ak ñom amna na taxawal lu tuddé le parcours d'insertion du talibé fexe ci impliqué partenaires techniques et financiers yi nga xamné ne ñëpp ñu ngi fi inshallah rabbi pour ñu accompagner ñu te insertion li ma koy faral di waxee su nekkul rek formation et typiquement emploi Il y a des questions aussi sociales qu'il faut tenir en compte c'est parce que ay talibé les ñuy waxal yooyu yëpp mobiliser toutes ces ces ressources là pour que ñu mettre en place le ñuy le parcours d'insertion du talibé accompagner les ngir yombal seen xëy xëy mi bu ñu ko waxee nekk mën a ci auto emploi Manam entreprise bu ñu taxawal seen bopp wala emploi salarié Manam ñu dem ci barab aussi di fa liggéey métier nekkul pour jëlee la ci li nga gëm di ko def da koy yombal autonomie les ñu bëgg ci xale yi

yenen y yenen ndongoy dara ndax tey jii suñu ministère de tutelle du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat ci kaw instruction kilifa bi di président Macky Sall dañu wax ni ko formation bi dañu war a tourner wu jaklel ko ñi nga xamante ni tamit nekkuñu ci dispositif classique dispositif classique nak moy ñi ñiy jàng jóge fii dem BP def def bac etc ñi nga xamanteni ni ñi ngi ci touche bi tay ji fofu lañu wara gëna xol gëna accès suñu financement yi looloo waral tay ji ñu accompagner euh, association Génération Salir formation bi donc euh, formation bi la xamné ci mécanique la jëm légui mécanique mom dafa euh, lo xamné il faut xalé yi jàng ko ndax lu ci ëpp légui auto yi dafa bëri électronique té électronique boko ko jàngul rek da nga yak auto jàmbur donc bo gisé contention yu bari mu ngi am entre mécaniciens yi ak euh, borom auto yi liko indi rek moy ñu ci bari ñu ci bari dañu defugul dañu dañu dañu jëmul ñew ci école yi jëm xam électronique boobu nu démé ci équipe bi parce que légui li ñuy wax système embarqué bo xolé auto yi légui même waxuma la rek waxuma la sax moteur bi ak yeneen yi mais ubi auto bi rek buntu bi rek noko ubi rek ça dit lepp électronique la donc motax euh, day bax xale ñew jang ci fi légui nak jang bi amul âge amul âge amul kii dafa jang tubab wala ki nasaran wala ki dafa jang arab jang bi yep dinañ ko mëna a parce que légui jang bi da fay dem ci li nga xamné mbirum euh, ki la ki lu ñu gëna wax sa pratique la wa do xaral wa donc du lo xamné da nga ñëw di théorie di wax di ay théorie di théorie rek da nga ñëw tay bu dé ci par exemple ko xamné da ngay wax nga né li kat li moteur la nga né ci benn ci moteur bi amna benn pièce bo xamné mu mëna nañu wax né la lii frein la xamu nga soxlawul nga jang école nga jang tubaab pour xamné li frein la su dé xalé bi ci olof mo xamné ni li kat frein la nako xamé rek mu xamé ko nga xamne buy defar auto bi mom dina xamne ne kat li frein la soxlawu mu jang français donc nak jang bi ci lolou lay jëm nga xamne beaucoup plus pratique lay doon. alhamdullilah dir nak ñogi ngi jëflante ak ñom gis nañu ni ñom dañu naan ben talibé ben métier waye man ñun biñ ko tambalé dundu dañu ne ben talibé fukki métier li tax moy euh juroom ñaar la ñu présenter cet métier ci ben diplôme bi waye fekkoon na ñun ñu am métier am jàngale am métier mbay am métier commerce